kon gars a njox na système bi système baa ngi nii yi ngeen gis ak kaabul la kaabul gi moom laa def ni muus bi dama sonal ñetti fan ngi nii bu fekkee moom njëkkee ñëw fii la jaar dug lekk samay xeti sama benn xeti moo xam daa yor ay cuuj bi des ay nan la yoroon muus bi ñëw lekk ko léegi nag comme yàlla dogal na moom doomu aadama yàlla xel la ko may muus mi yàlla dogal na nii la ko këpptalee buum euh, euh, bi tak jël tak tak ci buntu bi tok diko xaar bi yalla doogalee mu ñëw nak mo wutone xati mom jotoon lek mo nek na le seenu mus ni maa ni ci caaxaan la nek yawo ni ci caaxaan mus ni le seen ko non ci kep kep la nek xaw naa maa rey sama xëti yëpp lekk na ko ak sama cuuj yi <clears throat> daal di ubbi affaire bi raccantal ko wut buum baa ngi nii su ma tëddee fay lam bi <clears throat> day jàpp ne na <laughs> fekk ni <laughs> na fee moom <clears throat> fi door maa naa depp suba moo <laughs> xool wax dama koy def liberté provisoire laa koy may wala dama koy kii wala dama koy def contrôle judiciaire comme ni def sama waaj Ousmane Sonko xam naa fa laay jëm moom de ci caaxaan képp a ak tappale nekk ay pexam bu jóon a tuuj duma ko maa nga nele ci biir maa ngi ne ci biir léegi laa këpp télé gis nga xëti ma la ci biir moo ko commencé woon a lekk démb nag dakaa def ma defal ko gratuite xam nga dem bu ko lekkee eh, bu ko lekkee dem dara fekk ko ci bu subaa bu xëyee du ñëw du ist day ñëw dugg mu ne ko yàqu nga <clears throat> fi ne nii saa yaa ngi nii ci biir nii ci suuf sama cuuja fi bi ah, koo xam ne sëñ bi sàccul fi di daan dooleem di wut am yare ganaaram nga bàyyi bu guddi sëñ bi fi ne nii deux heures moins waaye man cinq heures laa jëmoon ak moom rekkam duma ci sayan waaw ah, kon ngeen gisee ko noonu rek <laughs> eh, yàlla duy faral koy tooñ tooñ da amul garanti sëñ bi ñu fanaan yàlla yàlla may fanaan jàmm rek su ak jàmm ma xool nu may def ci mbiram